redoubler d'efforts et prendre exemple sur ces élèves qui ont été primés aujourd'hui. C'est pas chose impossible. Vous y arriverez grâce à un travail sérieux et acharné. Donc j'espère que l'année prochaine, on vous verra tous ici en train d'être primés, comme ceux qui ont été primés aujourd'hui. Allez, félicitations encore, des applaudissements. Alors,

waaw donc pour le lot élèves ayant une moyenne de 17. oui. on va commencer par calculatrice Sharp. calculatrice. Sharp. dictionnaire. œuvre au programme de. trois cahiers. SVT didacticos. SVT. IPAM. IPAM. Keep touch. livres et exercices. Oui. BFM en poche, les cracks. Les cracks. Les cracks. Oui. Math BFM en poche, les cracks. Mathématiques, BFM, qui moom daanaka lépp la am. Uh-huh. Toutes les matières et. Trousseau. Avec des stylos. Crayon. Crayon. Gomme. Stylo. Bleu. Rouge. Vert. Rouge. Vert. Blanco. Blanco. <laughs> Et on n'oublie pas l'essentiel. En plus. En sac. Sac. En sac. On appelle. Ndeyjoor Faye de la quatrième A ah, quatrième A yéen moom leen àndal macha allah laf ca tous <laughs> de 17 48 Ndeyjoor Faye yow kay li yow lii moo tax nga nekk doomu madame Ndiaye dangeen ngeen tolloo da neexoo mar ndey yaayam madame Ndiaye yaayam madame Ndiaye yaayam ñoom ñëpp a tolloo c'est la c'est famille 1 mètre 20. <laughs> ça famille 1 mètre 20 franchement. acca y'a madame Ndiaye même qui qui remet le lot. aca félicitations Ndeye Dior il faut il faut persévérer ok merci beaucoup merci mademoiselle Ndella Mbacké avec une moyenne de 17,56 de la 4e G aca Ndella Mbacké Mbacké ouais Ndella Le lot sera remis par euh, Kan. Kan Surveillance. Kan. Kan Surveillance. aja tàccu leen Ndella Mbacke waay ana waa quatrième G macha allah yàlla na la jik la photo de famille. Au suivant. Excellence. Avec une moyenne de 17, 47. 17, 47. Il Madame Dia qui va présenter le lot aussi. Hein? Donc le lot est constitué. Stylo bleu. Stylo Blanco. Blanco. Gomme. Gomme. Crayon. calculatrice, dictionnaire, dictionnaire, œuvre pour la classe de quatrième, bled, trois cahiers, IPAM, exercise, exercise and book, excellence mathématique, excellence mathématique, Et de géométrie. Merci, merci, Madame Diaye. Le tout dans un sac et son diplôme. Maintenant, on appelle euh, euh, Monsieur Khan. Monsieur Khan. vous allez remettre. Euh, donc, D'abord, d'abord, Monsieur Kane, surveillant, quand vous laissez à Monsieur Kane, surveillant, donner ça. Et après, Après, les Gascambi, quoi. Ah, donc, je vais lui remettre son lot. Ne gêne gorgorlo. Vous me baillez l'homme. Voilà. Donc, le prix nous sera remis par Monsieur Loïc. ak ba da ngeen def nii pour may ñii ci gannaaw gis oui ma non da ngeen demee nii pour may ñii ci gannaaw gis waaw mooy ko ñu ko ray nii waaw defal merci beaucoup monsieur Ba monsieur Ba aussi il est aussi élégant c'est le papa des élèves acha excellence monsieur Ba ñoo kontaan ci yow Acha Acha là c'est mon élève hein c'est mon élève monsieur Ka Lamine monsieur Ka Lamine un élève aussi très brillant à encourager Ka Lamine Ka avec une moyenne de Acha, on va présenter encore le lot aussi pour vous dire que ne madame Ndiaye n'a lésiné n'a pas lésiné sur les moyens franchement le sixième présentation Le sixième ayant une moyenne de 17. Ouais. Toujours Trousseau. Crayon. Stylo bleu, rouge, vert. Blanco. Calculatrice. Dictionnaire. Bled. Fakaye, IPAM, Mathématiques Excellence, Keep exercise. Et, <laughs> et, eh. eh. eh. matériel Merci, Madame Diaye. Donc le lot qui sera remis par M. Khan cette fois-ci, M. Khan, professeur de français. def lu rëy am lu rëy booy yi dañ leen di yeb yeb tey ba oto la ñuy jël pour yóbbu seeni loo donc on n'a pas lésiné sur les moyens ils n'ont pas lésiné sur leur savoir donc nous on ne va pas lésiner ñoo ko def ñu dóor leen ko point ku ko bëgg tamit demee na ko def c'est aussi simple n'est-ce pas donc on nous vous exhortons à travailler il y a que le travail qui paye il y a que le travail qui paye ok il y a il y a le laboureur qui le disait à ses enfants nest pas

ou bien je suis là, je peux faire du yango, je peux vous amener, nest pas Les temps sont durs, je vais, je vais faire du yango, n'est-ce pas Donc, Madame Diaye, à l'honneur de nous ce gigalo. Ah mais monsieur Ndoye, ku def lu reuy am lu reuy Hein ah, ku def lu reuy Ah monsieur monsieur Thiaré Ibrahima Sonko Ibrahima Cette année, quatrième, En plus, c'est le gardien. Et en plus, c'est le gardien du, de de l'équipe de football. Donc, c'est un, élève, qui est constant. On appelle ses parents. Un. <laughs> Bon, vous allez écouter attentivement. Allez, attentivement. Parce que c'est pas un lot ordinaire. C'est bon, maa ngi ñëw gars yi tege nga foofu. Aywa. Waxoon On s'écoute. Waaw après la, ñu ngi ñëw. Day ñëw léegi ci kanam. merci, beaucoup. donc waxoon naa leen sànq. ku ñu sagal ñu sargal la. te dinañ ko sargal. absolument la hauteur de son travail. oui écoutez vous avez a été constant. depuis la classe de sixième. dafa di élève boo xam ne kenn lam-laamew la bëgg jàngam ponctualité assiduité respect euh, travail constant donc kii dafa di koo xam ne dafa jara sargal te dañ koy sargal donc damay jël sama temps di leen limal paquet big rouge paquet big bleu paquet crayon noir paquet crayon de couleur gum. waaw waaw. taay. blanco. calculatrice sharp. œuvre au programme de troisième vol de nuit une si longue lettre. vol de nuit une si longue lettre. matériel géométrique. matériel géométrique. marqueur bi ñu ko bëgg. dictionnaire Larousse 2023. dernière édition. dernière édition. anglais

c'est pour préparer les élèves au lycée d'excellence de Diourbel. Ça, c'est pour le lycée d'excellence de Diourbel. Donc, hein? nous avons le PC et le maths. PC et maths, les deux. En Manuel en incontournable. Toutes les matières réunies. Hey. Eh. Cahier de TP. Même cahier pour... xoolal feuille pour def devoir ci la bokk. feuille eh pour devoir. Eh cahier paquet cahier grand modèle. grand modèle. cahier toujours classeur grand modèle. classeur grand modèle. waaw waaw day am saak. ak saak. pare gu ma de. cerise sur le gâteau. la surprise. waaw. aywa aywa aywa. monsieur Kane ah ah ah ah. monsieur Kane. aywa monsieur Ndoye. man man docteur damay dara yëkkati lu diis jeeg rek laaj man du ma yëkkati diis di dafa diis àndanu ma ko. félicitations félicitations. wóor. jàng rek wóor wóor. et eh, il il il l'a yal na la jig Sonko yal na la jig non dégg naa risque la ku dul jàng du ko def non non ku dul ko def am 19 risque bu rëy la risque bu rëy la et félicitations encore une fois à mademoiselle Aïta yaru na baax na mën na déglu ma ne woo yo. laay ma dee laay ma dee. Mani, celle-là. Elle fait notre fierté. Elle mérite des pas de danse. Ouais, et on ne va simple. jamais se lasser de la ah. présenter. Voilà, elle va présenter. Aïda Sall. Ah, Aïda Ah. ah. Laf cat, laf cat. Eh, laf cat, tu sais ma dame, laf cat. Donc, elle est arrivée ici euh, l'année dernière.

Voici un élève exemplaire. Elle est constante. Tout le monde serait d'accord sur le fait qu'elle est plus que disciplinée. Hyper respectueuse. Assiduité. Hein? toujours souriante, j'avais oublié. <laughs> Elle est toujours souriante. Donc si on se met à énumérer ses, qualités, vraiment, on va, va pas en finir. Et pour ma part, il n'y a pas d'adjectif assez explicatif euh, pour la, pour la qualifier. Donc sans plus tarder, ah loolu loowu càppaacóoli bi lañuy ñuy ñëw nag daal di présenté du yomb de yéen a ngi déglu yéen a ngi xool aja di ngeen xool di ngeen gis te ngeen dégg aywa donc l'eau excellence moins de 19 Il y ma ñëw trousseau gomme blanco taille paquet bic bleu paquet bic rouge stylo la sax ñu ñoo tàmm bleu rek ñun ñoo tàmm ndax tàmm bleu crayon couleur paquet crayon noir Calculatrice Sharp. Matériel géométrique. Ouvre au programme de la classe de troisième. Vol de nuit, une si longue lettre. ARAPS 2023. Dictionnaire français-anglais. La dissertation par l'exemple, de la troisième à la première. physique chimie cahier d'activité SVT didacticos ah. comme je le disais tantôt ces manuels ont été conçus pour préparer les élèves au lycée d'excellence donc on les appelle la clé des cracks BFM en poche troisième maths et euh, dictionnaire Larousse grand modèle toujours édition grand modèle yéen a cahier TP. Copie de voir. Copie de voir. Bëgguñu muy dagg kayem. OK. Copie de voir. Double, ensuite. Un petit modèle. Petit modèle. Un paquet cahier. Un paquet un paquet cahier grand modèle. Grand modèle. Et un autre cahier classeur. Un autre cahier classeur. interaction ah ku liggéey rek am ko de ku liggéey rek liggéey rek liggéey rek aja les mains les les mains je m'appelle euh, Madame Aminata Moundaïnian, Madame Ndiaye Aminata, professeure de français ici au CEM Serigne Cheikh ex-Canada. Je suis la présidente de la commission euh, organisation. Donc euh, cette journée, euh, comme, son nom c'est une journée d'excellence. On est là pour primer les, élèves qui se sont distingués de, par leur travail. Euh, quand on parle d'excellence, ce sont des élèves qui ont une moyenne euh, supérieure ou à Euh, mais aussi, nous avons, euh, lors de cette cérémonie, nous avons eu des, de, des élèves qui ont eu des moyennes qui sont inférieures à 16 aussi. Donc, ils en font partie parce qu'ils n'ont ils pas démérité, ils ont été les premiers de leur classe. Voilà. Donc, euh, cette journée, c'est pour eux, pour les, pour les féliciter et pour euh, encourager les autres à faire comme eux. Donc, euh, donc ça, c'est une initiative pour booster les élèves à travailler. C'est ça. Donc euh, ça, ça s'est fait grâce euh, à des bienfaiteurs. Donc euh, je vais citer deux d'entre eux. Euh, nous avons M. Bamba Koté, qui est en Guinée, et nous avons M. Pape Moussa Yoroniaïa. Voilà. Mm -hmm. Auditeur euh, à l'Institut Pasteur de, Dakar. Bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour booster les élèves. Donc, c'est pour leur montrer que seul le travail paye. parce que ce sont des élèves qui, qui se sont distingués de par leur travail et pourquoi pas les autres. Ils sont capables de le faire. Donc on espère qu'au sortir de cette journée, on aura plus de lauréats pour euh, l'année prochaine. Voilà. Donc nous avions l'habitude de le faire. C'est peut-être euh, la pandémie du, euh, de, du Covid euh, qui, nous, a freiner un peu. Donc, euh, on a repris cette année et on espère, Inch'Allah, que ce sera pas la dernière, Inch'Allah. Euh, ouais, man la, madame, man la, madame Ndiaye, euh, fii de Djangale, fille qui euh, CM Scam, euh, moo tudd Serigne Cheikh Anta Mbacké ex Canada ñu xamee ko ci ex Canada donc tey dañoo ñëwoon euh, pour euh, sargal suñuy élèves yi nga xam ne dañoo ràññeeku Euh, ràññeeku ci seen liggéey waaw olof bi dafa xaw a doy waaw ci jàng bi waaw donc euh, day euh, bu ñu waxee li lañuy ñuy woowee journée salgal xale yi gën a ràññeeku ci ci xale yi ci ci seen li ñu def li ñu liggéey seen jàng donc am nañ ci bu ñu nee journée d'excellence dañuy wax xale boo xam ne am na fukk ak juróom-benn ak lu ko ëpp donc mais dañoo am ñoo xam ne am nañ lu ko gën a tuuti Euh, am nañ ay fukk ak juróom ñi fukk euh, ñeent donc ñoom tam ci lañ bokk parce que ci seen biir classe ñoom ñoo ci ñoo ci raw donc ñooñu sargal nañ leen mais beral nañ loxo aussi euh, ñi nga xam ne ne ñoom ñoo gën a ràññeeku te bokk ci liste bi ñuy wax les excellents du CMSK donc en tout pour tout bi primé nañ 33 33 kii élèves te ñaan nañ yàlla ci édition yi di ñëw Euh, yàlla nañ am yoo xam ne dina gën a bari waaw pourquoi pas 200 mën nañ dem bay wala ñu premier élève yëpp moo ñu gënal donc euh, lii dañ ko def pour euh, booster xale yi pour ñu mën a gën a góorgóorlu ñi nga xam ne jotuñu cee bokk ñu ñu góorgóorlu pour mun cee bokk incha allah dëwën waaw léegi lii yëpp mën nañ ko parce que am nañ ñoo xam ne dañ ci li ñuy wax fecc gone bu neexee. waaw bu neexee gone bay jàpp sama orof yi kay day ngeen dee gone moo jàpp si ndigg li waaw donc euh, am nañ ci kenn koo xam ne mi tudd Bamba Koté waa ñoo xam ne ne vraiment ñu ñu yiwal euh, moo nu jàppale mi ngi nekk fële si Guinée ak keneen ku ñuy tuddee euh, Pa Moussa Yoro Ndiaye mu nekk fële contrôleur ci Institut Pasteur de Dakar donc ñu ngi ciy remercier ñëpp remercier ci collègues yeeg kii yi surveillant yeeg surtout nag parents d'élèves yi parce que parents d'élèves tam dañ cee am wàll bu rëy euh, parce que xale tey euh, bien vrai que bu ñëwee école am na lu muy euh, li mu fiy am si mais kër ga tamit bu ñu jàppalewul du ñu am dañu bëgg donc loolu ñu ngi leen ciy remercier bu baax di leen féliciter aussi te di ñaan yàlla bu mu fi am te yàlla na fi yàlla na yeneen yu mel ni yu gën a neex <laughs> yu gën a gën a kii gën a rëyati sax gën a am lii dañ ko improviser ah on peut dire ça on l'a improvisé donc ça s'est fait en l'espace d'une semaine mine de rien, mine, une semaine. Donc, euh, notre bienfait, nos bienfaiteurs nous ont bien aidés. Parce qu'en une semaine, on a pu réaliser tout ça. Parce qu'on voulait faire ça en grande pompe. Mais on s'était dit que les moyens n'allaient pas suivre. Mais vous avez vu, on a essayé tant bien que mal de, faire euh, dans le, dans, le, dans possible. Et je crois qu'on l'a réussi. Donc les prix ne sont pas, euh, ne sont pas comment je vais le dire. nous avons de, bons lots. vous l'avez bien constaté, euh, Donc, on a primé pour presque toutes les matières. Donc, euh, pour que l'élève soit, euh, soit polyvalent, qu'il puisse être soit littéraire ou scientifique. Donc, ça importe. Donc, on a primé et on espère que l'année prochaine, Inch'Allah, ces élèves qui se sont distingués puissent faire partie des lauréats qui, seront, qui vont intégrer le lycée de Djurbel, de, le lycée de Djurbel, le lycée d'excellence de Djurbel. Allez, merci à vous. Euh, bonjour, je suis Madame Diao. Je suis Madame Diao Fatoumatassi, la principale du CM ESCAM, ex-Canada. Je trouve cette initiative très bonne, très pertinente. Euh, ça se faisait, mais on l'a plus fait avec la pandémie. On a essayé l'année dernière de faire une euh, distribution des prix symbolique, une cérémonie très sobre. On avait primé qu'une dizaine d'élèves et heureusement pour nous, ces dizaines d'élèves, on les a retrouvés cette année. et ils figurent toujours parmi les premiers. Parmi les premiers, on peut les nommer. Il y a Aïta, Ibrahim Sonko, Ndela, euh, euh, Ndeyjor. Ils là l'année dernière avec des moyennes entre 17, 18, 19. Donc ce sont des élèves constants et vraiment nous sommes satisfaits de leur, de leur travail. Donc une très bonne initiative que nous pensons continuer, Inch'Allah. Euh, L'année prochaine, nous aimerions le faire en train grande pompe avec euh, beaucoup plus d'élèves et beaucoup plus de l'eau, Inch'Allah. Bon, euh, il n'y a pas de secret. Peut-être que euh, c'est le travail. Nous avons une équipe pédagogique très dynamique qui ne ménage aucun effort. Nous avons même des collègues qui sont là les dimanches, qui travaillent les dimanches, les samedis. D'autres collègues qui viennent avant 8h, qui sont déjà en classe à 7h30, à l'image de Madame Yaï, ici présente. Donc, euh, à l'image de M. Faye, donc ils sont là à 7h30 déjà, monsieur Sarr, ils sont dans les classes avec les élèves. Les élèves sont suivis régulièrement, aussi bien à mais aussi nous remercions les parents qui ont accompagné ces élèves-là. Ils ont des répétiteurs, mais aussi il y a l'encadrement et cette harmonie familiale, cet épanouissement familial qui est important. Si l'élève s'épanouit à la maison, c'est normal qu'il s'épanouisse aussi à l'école, Et l'encadrement aussi pédagogique e est, est, un encadrement aussi qui permet aux élèves quand même de mieux travailler. Là, nous, nous pouvons remercier l'équipe pédagogique, l'équipe pédagogique qui est là, Machallah, de jeunes collègues qui font tout, qui aident beaucoup les élèves et qui sont là tout le temps avec eux. Donc, les élèves, à chaque fois qu'ils ont besoin d'eux, donc ils trouvent un collègue à qui parler, à qui donc demander des questions. Donc, euh, des collègues qui les aident à réviser, à renforcer. Donc là, on voit que vraiment, c'est une école quand même où nous avons de la chance. Je peux dire que c'est une chance. Avoir un personnel qui est là, présent, qui est disponible, donc qui donne tout son temps, presque tout son temps à l'école, là aussi c'est une chance et nous disons Alhamdulillah. sant yàlla. Euh, asalaamaaleykum man maay euh, madame Diawo donc euh, principalu njiitu école bi CM Escam ex Canada maa ngi fi ñëw depuis 2020 école bi ba ma ñëwee ba léegi ñoo ngi liggéey te gis nañu liggéey bi aussi am na ay retombe parce que ñoo ngi progressé ndànk-ndànk cadre bi aussi mi ngi changé élèves yi gis nañ ni ñoo ngi jàng bëgg nañu jàng te ñoo ngi leen ci accompagner loolu moo waral sax tey journée de journée d'excellence bi nii dañ ko def pour xale yi nga xamante ni dañoo liggéey ñu sargal leen mais tamit xale yi nga xamante ni dañoo moye ñu encourager leen su ñu gisee seen morom yi ñu jox leen ay ay neexal ay ordinateur ay livres au programme ay cahier ay sac pour ñoom tamit ñu gën a ñu gën a góorgóorlu ñu ñaax leen ñu gën a góorlu xool si seen morom yi xam ni lépp mën na nekk xale da nga koy won exemple bu baax seen morom yi tey nuñ leen sargalee ñoom tam suba dinañu def tout pour ñu sargal leen loolu moo indi journée d'excellence tey bi di jaajëfal ñi leen di jàngal seen professeurs yi ñoom tamit ñu ci sabablu lañu sonn nañ ci torop tout le temps dañ fi nekk dañ fi nekk ay dimanche ay samedi ay suba teel di jaajëfal aussi parents yi ci kër yi tamit ñoom tam dañuy xool xale yi di leen toppatoo di leen fayal ñu leen di jàngal loolu yëpp soo ko boolee tey moom moo indi résultat bi di ci sant yàlla lu baax di ñaan yàlla mu jëm kanam di aussi remercier suñu bienfaiteurs yi wax na ko léegi monsieur Bamba côté monsieur Pape Moussa Yoro Ndiaye presque loo yëpp ñoom ñoo ñu ko may école amul doole pour jënd loo mais bañ ne journée de l'excellence rek moom mii l'organisatrice dafa jóg taxaw ne damay jóg wuti ay partenaires mu dem indi ay partenaires am partenaires yi def lii lu rëy lii tey ñoom tam ñu leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm li ñu mun ren yan nañu mun lu ëpp loolu dëwan di leen ñaanal wér ak kàttan ak gudd fan di leen wax ni macha allah kontaan nañu ñun kontaan nañu élève yi kontaan nañu parent yi kontaan nañu ñëpp kontaan nañu ñoom ñoo tax te journée bi neex macha allah di leen ñaanal rek yàlla fay leen au centuple. waaw jàng dafa am norme boo jëlee classe nga def ci quatre-vingts élève xale duñ suivre kay jàngale aussi day am problème ñun dañu opter pour des classes yoo xamante ni du bëri élève on a des classes de cinquante élèves. maximum cinquante quarante huit quarante neuf xam nga loolu c'est un choix loolu moom moo indi tey ñu am lii parce que yow mii di jàngale boo toogee jàkkaarloog say élèves danga nga leen war xam kenn par kenn boo xoolee classe bi rek war nga xam Ibrahima Sonko ni kii mooy Ibrahima Sonko kii mooy Ndéla kii mooy Ndey kii mooy Awa Cissé kii mooy Mouhamed Fall parce que xale yi bëri wuñu di leen mën a topp benn par benn nga xam noo leen di encadrer ci biir classe bi mais bu ñu bëree day metti day metti képp kuy kat rek buñ la dugalee ci classe bu bëree doo mën a dem ak loo aay aay aay da ngay sonn xale bi itam day sonn pour comprendre parce que concentration bi dafay des loolu rek la loolu la ñu opté te yaakaar nañu noonu ñu ko defee xëy na yàlla dinañu gën a mayaat dam encore ñu dem ba am lu raw lii incha allah en tout cas ñoo ngi ñaan yàlla may ñu loolu. incha allah loolu la man fi laa ko fekk Ucam c'est une famille. c'est une famille quand je parle d'une famille collègues yi ñoom seen bopp benn lañu suñu élèves yi ñoo ngi nii ñoom it benn lañu boo gisee ñun defuñu xale yi ragal ñu dañoo def xale yi rus ñu parce que xale yi bu ñu rusee buñ leen santee dara dinañ ko def sans problème loolu moo indi lii yëpp xale yi tey bu ñu nekkee classe dañuy jàng normal mais suñu génnee kafa ñun réew ak ñun en classe ils respectent les professeurs ils respectent les surveillants dans la cour mais bu dara desul nag lu euh, jàng dañuy jàng bu dara desee tamit lu dul ay kafre entre entre prof entre collègue gis nga tey jeune collègue yi doon animé ay professeur lañu mais gis nga ambiance bi ak yooyu mais teewul bu ñu duggee classe xale dañuy jàng normal duñ leen yeb benn yoon c'est un respect mutuel comme ni ma ko waxee woon sànq ba may intervenir jàng nekkul loo xamante ni da ngay fas sa kanam crispé wu di jaay dictature ay kii la ni ñu koy waxeeti échange la échange la léegi école dafa war a nekk loo xam ne da ngay échange ak say élèves élèves yi di la ñeme laaj question nga leen di répondre ñu def la yaay def la tante def la tonton def la papa def la nijaay loolu tamit c'est important pour que l'élève fonctionne pour que l'école fonctionne comme correctement nekkuñu ci un rapport de force mais dañuy nekk ci convivialité bi nga xamante ni xale yi duñu am benn problème pour ñu laaj ñu dara walla avancer daal là vraiment c'est important loolu moo indi tey li macha allah ñun yaay ñu ñuy ñaan yàlla mu jëm kanam yàlla lafal ñu cet aar ñu sàmm ñu suturaal ñu suñu élèves yi du suñuy doom parce que ñu ñooy seen premier parent bu ñu jógee école la matin bu ñu jógee seen kër la matin il revient le soir à 17h yendoog ñun suba ba ngoon ñoo ngi nii kuñ ci gis muy soox ñu ne la lan la ku ci gis nga jàpp bopp ñu ne la lan la ku ci gis nga xonqal bët ñu ne la lan la mais on est là pour avant tout te boo nee éducation yar day dugg yedd day dugub ak jàngale itam moo indi loolu. ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit waa Tacko TV. waaleykum salaam maa ngi leen di fay di leen sant bu baax di leen gërëm ci teewaay bi man la Codou jaawo yaay ci élève Aïta Sall de la classe de quatrième A. waaw mbégte bu rëy a rëy bu ma mënut a expliquer bu ma mënuta a ndax euh, vraiment c'est une grande fierté euh, man lépp rek damay wax ni que corps enseignant bi commencé ko ci madame la principale madame si ak euh, madame njaay mi nga xamante ni moom aussi sama sœur la di prof français ci établissement bi di yaay nag ci sama doom ndax taxawaayam ci sama sa sama doom ak xale yi nga xamante ni ñi ngi ci école bi di jàng donc ak euh, moom aki i naataangoom yëpp professeur yëpp ma leen di jaajëfal di leen remercier ci euh, ni ñu encadré xale yi ak ni ñu leen téye man je dire que dama ñëw ci école bi li ma njëkk euh, li ma njëkk neex mooy dama gis ni que corps enseignant bi yëpp dañu def dañu mel ni que xale yi maanaam famille la école bi da nga naan sax au delà mu nekk école au delà mu nekk lieu bu ñuy jàppalee xale yi di leen jàngal di leen tatagal di di leen inculquer ay valeurs mais famille dañu def xale yi seen ay doom moo tax euh, vraiment euh, ma leen di ñaanal rek bu baax a baax a baax euh, li ñu bëgg te sumb ko ci njaboot gi ci seen njaboot gi ci xale yi élèves yi yàlla nañ ci gis lu kawe seen njort incha allahu rabbi Bonjour, Merci. je m'appelle Aïta Sal, je suis en 4e A. Je trouve que l'initiative est très bonne et je suis contente d'avoir pu participer à cet événement. Je remercie aussi tous les professeurs et plus particulièrement Madame Ndiaye et aussi notre principale. <laughs> je n'ai pas de secret. Je, je voudrais juste dire à tous les élèves que le seul secret, c'est de travailler assidûment, de venir tous les jours, d'être à l'heure et d'être correct. en Wolof. salaam man la ay Sall maa ngi jàngee quatrième A tey dama kontaan trop ci li ma participé si événement bi maa ngi remercier professeur yëpp ak surveillant yi ñëpp euh, encadreur yi nekk école bi yëpp plus particulièrement maa ngi remercier madame Ndiaye ak suñu principal. Euh, dama kontaan trop vraiment bu pare euh, dama si surprise parce que xalaatuma woon ni lii yëpp dina ci bokk cadeau yi bëri na trop et nous remercions tous ceux qui ont participé. amul secret secret bi leen rek la mooy jàng. di ñëw chaque jour euh, correct aussi respecter ñëpp mais le plus grand secret c'est de travailler jàng rek la. lan ngay lan ngay ñaax sa morom élèves yi ñoom it bëgg nañ toll fi nga toll. <laughs> maa ngi leen di ñaax ñu jàng ñoom ñëpp euh, redoubler d'efforts ndax plus tard je suis sûre que ñoom tam mën nañ am li ma am. bonjour je me nomme Ibrahima Sonko je suis un élève en classe de quatrième je trouve cette initiative c'est une qui est élaboré par Madame Ndiaye. Et je suis très aujourd'hui, je content. Je ne peux même pas exprimer ce sentiment. je, je à féliciter Madame Ndiaye ainsi que la principale et tous les autres encadreurs de cet établissement. ah tey moom kontaan naa tey je suis très content tey moom dama dama trop. te di delloo di félicité tamit maanaam Ndiaye moom mi kii moom mi élaboré affaire bi ak ak maanaam kii maanaam la principale ainsi tout les autres encadreurs de cet établissement waaw di wax sama morom élèves tamit ne leen seul le travail paye fi amul dara luñ fi nëbb ku ku jàng rek am am li nga war am ku jàngoon nag doo si tey moom dama dama sama bopp te tamit ñoom je pense qu'ils ont qu'ils sont très fiers de mois même remercier tamit samay parent mon père ak samay camarades de classe di ñu féliciter ñëpp tey je suis très content je n'ai même pas les mots pour m'exprimer